médecin chef de la région médicale de Diourbel waaw région médicale nag taxawaayam ci màggal gi mooy nas lépp loo xam ne activité la bu jëm ci couverture médicale bi euh, at mu jot nag dañ koy def ak partenaires yi nga xam ne ñoo ñu jàppale ren nag li nga xam ne nar nañ ko taxawal ci ay bërëbu fajukaay dina toll ci euh, téeméer ak juróom-ñaar fukk nga xam ne hôpitaux yi nekk ci région bi yëpp dañ ciy bokk centre de santé yi dañ ci bokk poste de santé yi dañ ci bokk waaye yoon yi nga xam ne dañoo jóge ci yeneen région yi du ñëw Touba bërëbu fajukaay ya fu nekk yëpp dañu leen di boole ci dispositif donc moom leen la hôpitalu Kaolack wala centre de santé Gossas boo jógee foofu boo jógee dakaar boo ñëwee ba Thiès ak Xombol ci lañ bokk boo jógee Louga ba Kébémer Darou Moussi yooyu yëpp ci lañ bokk bu ko defee foo toll foofu rek bu la neexee bu fekkee ne am nga ay soxla ci wàllu wér yaram boo fa wàccee dañ la faj ca doo fay parce que euh, màggal gi paj mi bu màggal gi desee ñaari fan ba ba ba weesu ñaari fan lépp lu ñu la fi faj mm, doo ko fay euh, c'est c'est gratuit parce que garab yi ministère de la santé moo ñu koy jox ñu positionné ko ci ci ci kër doctor yi léegi nag ci wàllu personnel lu tollook ñetti junni nit dana mm, danañu nekk ci kër docteur yi di faj bokk ci ñooñi nag lu tolloo ko téeméeri médecins yoo xam ne spécialiste lañ yoo xam ne hôpitaux yu Dakar la ñuy ñëw jàppale mm, seen naataango yi nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi nekk ci hôpitaux région yi médecin spécialiste dana am ay sage-femme dana am ay infirmier dana am aussi ay agent d'hygiène am ay agent de communication loolu yëpp nag boo ko boolee moom mooy toll ci euh, ñett junni nit yooyu ma wax léegi paj nag ku ko wax da nga wax garab garab aussi ministère de la santé danañ ci jox lu tolloog ñaar juróom benn fukki ñaari millions nga xam ne moom la ñuy teg ci opito yi ak centre santé pour que ku soxla garab yooyu bu ñu la seetee ba pare man la ko jox ci comme ni ma ko waxee woon léegi doo faj da doo fay dara euh, waa am na benn service bu ñuy wax SAMU nga xam ne lépp lu jëm ci urgence maanaam blessé yeeg accidenté yi am na aussi ab ndimbal bu ñu indil ci wàllu renfort ci ay auto ambulance médicalisée ak ay services yoo xam ne aussi dañ koy def ci biir opito yi ba nga xam ne képp ku ci soxla faj façon faj moom faj faj urgence yooyu lu mel ne accident la circulation wala yeneen Euh, ñoom ñu jàpp ci ba vraiment euh, nga ñëwaat ci sa jàmm loolu daal ci gàttal mooy dispositif bi nga xam ne ci wàllu faj waaye léegi nag des na wàllu fagaru fagaru moom xam nga service d'hygiène moo koy moo koy yor service d'hygiène nag moom ñëw na Touba bu yàgg ndax depuis le 20 ñu ngi fii di def ay ay poudre di dugg ci kër yi di xool set set set set setu environnement bi di dugg ci bitig di xool ndax amul ay produits yu bon yu jaay di dugg ci marché yi di pulvériser dëkk bi pour xeex yoo yooyu yëpp commencé nañ ko def depuis le 20 ca ba léegi ñi ngi ñi ngi ci continuer def ñi nga xam ne ñooy yëngut ci wàllu communication nag ñi nga xam ne seeni naataangoo lañ euh, ca nekk ci service bi ñuy wax éducation pour la santé ñoom aussi commencé nañu def ay waxtaan dugg ci kër gi di yeete ba nga xam ne lépp loo xam ne comportement la boo xam ne mën naa jur ay tolof tolof ci wàllu ci wàllu wér-gu-yaram ñu xamal leen ko bu ko defee population yi moytu ko donc loolu daal ci gàttal mooy dispositif bi day am disposition boo xam ne day day day xeex sibbiru di ko aar day xeex xeex jàngoro de façon globale di ko aar ak dispositif boo xam ne euh, day faj ak dispositif boo xam ne day yeete ñett yooyu yëpp nag la région médicale di coordonné moom mooy doon dispositif de couverture médicale euh, du Grand Magal de Touba. Euh, waaw def nañ fi benn waxtaan wu yaatu woo xam ne ñëpp ñi nga xam ne dañoo seq communication cay war a def ay intervention ci màggal gi dañoo bokk toog. Euh, saytu li nga xam ne mën naa doon tolof tolof tolof tolof bu nekk nag ak ka ko yellool nga xool conseil ba ca war nga def ko euh, pelerin bi bu jógee këram di màggale li nga xam ne moom lay njëkk a jànkonteel mooy oto yi ca xam ngeen ne oto yi at mu jot mu def ay accident yu bëree bëri accident yooyu bokk na ci problème yi nga xam ne moo gën a am moo gën a sérieux ci màggal gi bu ko defee toog nañu ak transporteur yi waxtaan ak ñoom lépp loo xam ne xalaat lu jëm ci nu ñu mën a def ba chauffeur yi daw daw ndànk cay respecté code de la route wax nañ kook ñoom te ñoom it dem nañ tasaare ko léegi bu pèlerin bi ñëwee ba Touba nag na xam dëkk bi ni mel jamono tàngoor lañ nekk donc dañ leen di conseiller surtout bu fekkee dañoo ànd ak ay mag wala ay xale ñuy naan ndox mu baree bare pour bañ a ñàkk ndox mi nga xam ne moo nekk seen yaram loolu aussi def nañ ci waxtaan wu yaatoo yaatu def nañ ci sax ay ay kayit yoo xam ne euh, xam na booy dem da ko yóbbaale bu ko defee dañ koy distribuer ku ko jàng mën a xam conseil yi nga xam ne euh, moom lañu bëgg euh, pèlerin di ko appliquer wàllu set ak set set nag moom moom moom mooy li nga xam ne at mu jot ci la ñu gën a insister loxo yu set ñam yu set ndox yu set ca bàyyi wala nga moytandiku noo ko mën gën a mëne lekku mbedd yi ak surtout garab yi nga xam ne ñu ngi koy jaar ci mbedd yi loolu bokk na ci conseil yi nga xam ne aussi at mu jot ci la ñuy gën a insister loolu yi def nañ ci ay flyers def nañ ci ay ay ay ay kayit yoo xam ne dañ koy distribuer ci màggal gi di dugg ci kër yi di ko joxe pour que nit ñi vraiment xam ne set mooy base mooy base wér-gu-yaram bu fekkee ne sa loxo yi set na boo lekkee du la jural benn tolof waaye bu sa loxo tilimee boo lekkee mën na la ay feebar ay biir yu daw te loolu moom jara moytu la ci ci banaam biir màggal gi voilà. am na numéro yu bëri numéro yi moom it bokk na ci ci ci information yi ñu joxe euh, bu fekkee am nga cas bu garaaw. boo wooyee sami quinze 15 mm, danga am information bu fekkee na da ngaa bëgg a laaj sa ak xalaat rek ci sa tolluwaayu santé dangay ngay laaj SNEPS da ngay woo numéro vert SNEPS 800 00 50 cinquante bu fekkee ne da nga am xale boo xam ne par exemple dafa lekk loo xam ne baaxul am intoxication wala mu jël naan naan produit boo xam ne baaxul mun na koo jural ay kii nga woo centre antipoison seen numéro 818 la 0 15 15 léegi nag lii nga xam ne moom lu bees la ren mooy. kër docteur yi nga xam ne moo nekk ci région bi dañ ko def ci carte ren ba pare dugal ko ci net bi nga xam ne sa sa téléphone boo ko interroger interroger site web bi carto santé point map point arcus point com boo ci duggee da nga mën a xam foo toll barab bi la gën a jege bu ko defee boo ko soxlaa nga mën caa dem faju loolu si kayit gu mu lay la bu ko defee boo demee aussi man koo tasaare ba ñëpp xam ne fu ñu toll ci Touba mën nañ am barabu fajukaay bu leen jege boo xam ne bu ñu fa demee danañ mën a faju am na ay numéro yoo xam ne bu fu ñu fa wootee lu ñu soxla ci conseil mën nañ leen ko jox ci wàllu wér-gu-yaram voilà. Hmm? kàddu mujj daal di gërëm presse parce que presse bi aussi euh, ñu ñuy dimbalañ ci wàllu communication xam nga am na ci foo xam ne ñun mënuñu faa yegg waaye yéen ñu koy jàllaleel ñu leen di ñaax rek vraiment ci conseil yi nga xam ne moom lañ jox wala jox pèlerin yi ba nga xam ne danañ màggal si jàmm dellu si jàmm ci du ñu am benn tolof tolof may insister waat ci tàngooru Touba bi insister aussi ci yooyu parce que nawet lañ bokk insister aussi ci lavage de mains set ba nga xam ne vraiment mën nañoo màggal ba ñibbi te du am benn tolof tolof voilà. waaw diaspora bi aussi seen taxawaay vraiment ñu ngi koy rafetlu keroog euh, fan yee weesu dem naa fi benn euh, cérémonie de réception de dons boo xam ne. Euh, waa daayira yi nga xam ne ñoo nekk États-Unis ñoo nekk euh, États-Unis c'est ku ñu wax sëñ Mbàkke Cuun euh, jiite ko wala ñëwoon toogal leen fa keroog ñoo fa def doom bu am solo boo xam ne toll na ci daanaka deux cent cinquante millions defoon ko nag ci hôpital bi nga xam ne mooy hôpital bi ëpp solo ci Touba bi ci gën a rëy di Matlaboul Fawzeyni keroog directeur bi wax na ne doom boobu dana tax seen service yi gën a am solo gën a am qualité yaakaar naa lu mel noonu la ñuy xaar ci diaspora bi bu ko ñëpp doon def service de santé yi nekk ci région bi dana dana dana gën a soqaliku te loolu aussi bu ñu ko defee seen mbokk yi nga xam ne moom lañ bàyyi ci dëkk bi ñoom la ñu jël en charge de façon correcte loolu daal maa ngi leen ci gërëm bu baax waaye di leen ci ñaax ñu gën koo dolli dem ba nga xam ne sax day am ay relation de coopération entre hôpitaux yi nekk foofu ak hôpitaux yi nekk fii Sénégal. Mm-hmm. ok tubaarkàlla jërëjëf sant tubaarkàlla jërëjëf merci merci Bichri léegi